baax donc ñi nga xamante ne mooy sunu partenaire u Luxembourg donc tey euh, am nañu benn signature convention ak entreprise bu ñuy woowee Suricate mu spécialisé wu dans lu ñuy wax euh, cybersécurité di euh, saytu lépp li nga xamante ne mooy xarale yu bees yi nan la ñuy riposter parce que nekk na monde virtuel boo xamante ne lu bëri def ci xew te faw ñu mën a wu ci wàllu le lu koy mettre en place un centre euh, donc de cybersécurité euh, l'Union lu ñu woowee CERT national moom au niveau du Sénégal mon nekk une première grâce à cette convention que nous avons signée mais également Benin, aspect bi muy infrastructure nationale des gestion des clés muy lépp li nga pour joxe ay certificats sécuriser sur ay transactions ci wàllu électronique lolu euh, def nañ ko ak entreprise bu ñuy euh, INSERT mu ngie un GIE euh, du Luxembourg lolu rek woné né ci confiance numérique ci Sénégal grâce à cet appui là pourra faire en tout cas Diego bu am solo ci walu informatique ak yu